aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, maa ngi tudd Massamba Seck ñu gën ma àdduna bi di ma woowee Seck emploi je le président du mouvement de sans emploi du Sénégal yi nga xamante ni seen objectif bi ko tax a jóg c'est la lutte contre le chômage et la pauvreté et la création des liens d'entente d'entraide et de solidarité le mouvement de sans emploi du Sénégal ni nga ko créé woon en 99 ci lañ ko taxaw mais on était dans l'informel on était des groupes euh, d'anciens élèves étudiants ñi nga xamante ni ñun ñëpp nous sommes euh, ñi nga xamante ni jàng nañu ami diplôme te jàppuñu woon ci dara ñi am formation jàppuñu ci dara ca lañ ko créer woon dans l'informel waaye ba ñu ci jógee dox nañ ci ay at yoo xamante ni c'est dans l'informel lañ doon dox waaye yàlla doon ñu ci may résultat comme nag l'appétit vient en mangeant ñu xam ne kat mbir mi fi ñu ko teg vraiment il est en train de faire ñu ne léegi nag dañuy formaliser wu c'est en ce moment nag la ñu dem euh, wuti ji ay këyit def suñu demande de récépissé yàlla dogal euh, ñu jox ñu ko ban ñu ko joxee it euh, am na fu nu jaar pour jéem a taxawal li nga xamante nii moom mooy bureau bi am les moyen de li nga xamante ni moom la ñuy xeex mu nekkoon loo xamante ni lu difficile la waaye nag comme nguur yu bu fi nekk wax dëgg moo neex yàlla ñoom politique lañ doon def te mouvement bi deful politique ñun suñu politique moom mooy politique d'emploi loolu rek la ñuy def ah ñu am fu ñu jaar ak ñoom. ba ñu fa jaar ñoom ñoom ñu xamal ñu ñi carrément te puis c'est la réalité ñoom daal li ñu bëggoon moom mooy que ni mouvement bi soobu ci politique jàppale leen su ko defee ñoom ñu jàppale ñu ba ñu ko bañee tamit nga xamante ni wut nañu beneen pexe ca la ñuy utiliser li nga xamante moom la ñuy wax euh, mécénat ak partenariat booboog léegi nag ñu nekk ci di ci dox di ci dox di ci dox xool nguur gi fa nga xamante ni foofu la jëmee politique de l'emploi des jeunes ba ñu xoolee nag nguur gi nga xamante ni moom mooy nguuru président Macky Sall situation bi dafa dem ba nga xamante ni dafa piir ba situation bi nag yàqoo ca la ñu jóg nag ñëw na léegi maintenant il faut que ñu def benn saut pour jéem a xool nu ñuy def ba soppi mbir mi ndax euh, am na ñeneen ñoo xamante ni gis nañ leen te fii ñu jëmale réew mi looloo ñu manqué woon moom mooy ci wàllu njub ak wàllu transparence ak wàllu loo xamante ni euh, ñi ñi ko yàlloo jot si ca loolu la ñu àndoon xeex-xeex bi ba tey ji yàlla may ñu ndam ba nguur gi nga xamante ni tey son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye jaaxaar Faye man ma tuddee ko bañ dee juqi fay ak kii nga xamante ni moom mooy Ousmane euh, Sonko ci loolu nag la ñu ñëw ne léegi comme yaakaar taxaw na ñun pexe yi nga xamante ni moom la ñu yoroon doon ko nëbb nga xamante ni dañ cee fiiroon dañ koy jël nag yóbbu ko teg ko ci seen loxo waaw loolu moom moo tax nag boobu léegi ñu reprendre nos activités yàlla dogal ni ngi ciy am ndam boobu ba léegi waaye tey dafa toll foo xamante ni yaakaar dafa taxaw te ñun dañoo am pexe yi moom moo tax nag ñu gën koo yaatal pour bëgg cee boole képp kuy sénégalais bu nekk fii ak bitim réew. donc nag loolu moom moo tax ñun euh, ñu am vocation boobu noonu te vraiment boobu ba léegi ni ngi ciy ni ngi ciy yëngu. sama yaram da ciy daw parce que comme ni ma leen ko waxee mouvement bi. Euh, wax naa ko fu ne wax ko fu ne dafa am ñu bare bari ñoo xamante ni xamoon nañ leen ci mouvement bi te ba ñuy dem ëmp ñu ñu ci baree bari ñooñu ñëpp tey jii yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen ajana waaye ba nga xamante ni moment bi favorable na étant grenier à ressources humaines ñun ñu décider toog xalaat ne ñun pourtant comme jëm reyante nañu ba nga xamante ni 49 personnes jaar nañu dans la voie de la légalité tey ji buñ ñu accompagner woon rek dee ñu fexe ba ñu baree bari doot ñu dem loolu moom moo taxoon ñu décider euh, doon sàkku partenariat état pour ñu lancer li nga xamante ni moom la ñuy wax les unités de lutte contre l'immigration illégale muy immigration clandestine bi te ci loolu dañ ci am accompagnement wu ñi nga xamante ni c'est des anciens officiers Euh, supérieur de l'armée des officiers de réserve ñoo xam te ne sont formés dans les renseignements ñu ñëw lëkkaloog ñun pare pour accompagner ñu rien mais il c'est des patriotes c'est des patriotes xam nga ñoom sans rien pour ñu ñëw gën ñoo accompagner ci lool pour su ko defee fépp foo xamante ni gaal dafay déparé ñun ñu taxaw di ko surveiller nga xamante ni bu boobaa ñu mën a jox renseignement yi bokkul ak euh, unité de renseignement bi nekk ci biir nit ñi ak bureau yi bokkul dafa am ba pare ci biir unité de lutte yooyu noonu dafay am des brigades de renseignement yoo xamante ni ay sans emploi ñoo xam nañu point yi ak fu ñu koy organiser yooyu yëpp ñoom ñoo fay dem bépp information boo xamante ni nii dafay jëm ci lu mel noonu ñu ñëw aggi ko bureau bi bureau bi en partenariat avec l' ñu mën leen a jox parce que nous n'avons pas le droit de faire la police aussi mais on peut aider l' état tout en sur surveillant tout en surveillant les plages et et et et donc nag euh, loolu moom moo tax yàlla dogal ñu lancer les unités de lutte contre l'immigration clandestine boobu ak léegi nag ni ngi ciy déglu ñi nga xamante ni ñoom ñooy les autorités compétentes te bëgg nañoo seeti aussi waa Union européenne bëgg nañoo seeti waa ambassade Espagne ak waa ambassade Italie waaye dañoo xam ni bu ci état jàppee mbir yi day gën a gaaw te bu boobaa lii nga xamante ni mooy problème boobu dañ koy dañ koy régler loolu moom moo waral ñu décider lancer les unités de lutte contre l'immigration clandestine pare na ba noppi waaye mise en œuvre bi donc moom moo ci des te loolu ko feu vert état donc lañ ciy xaar accompagnement am kese lañ ciy xaar incha allah. nga agriculture <coughs> dafa di mbir moo xamante ni euh, dafa baax ci réew. waaye ñun li nga xamante ni moom mooy programme bi ñu bëgg a nga xamante ni programme spécial agriculture la moom mooy les FASEM les FASEM nag boo ko déggee moom mooy les fermes agricole des sans emploi yàlla dogal na nu disposons de terre parce que on a 11 hectares à Louga ñu bëgg a lancé euh, FASEM yi Louga on a aussi 30 hectares au niveau euh, de de de Thiès mooy fi nga xamante ni foofu la ñuy defee mbayum dër mi mais accompagnement wu état bu ñu ko amee. incha allahu rabbi dañuy mën lancer loolu nga xamante ni chaîne lay doon les sans emploi yi nga xamante ni ñoom ñoo fay def ñoo fay nekk dañ leen fay tabaxal ay dortoir defar leen fa infirmerie defal leen fa mel ni kuy mankaani comme ni koy gars di defee parce que fii sax tey dinaa la wax nii am na ci ñoo xamante ni il quitte Thiès di dem euh, Morolan di fa def ay weer pour mën a am dara bu ñu wàññee ko ñëw j'ai des sans emploi yoo xamante ni dañuy jógee fii di décanté wu di dem bay boori Rosso di bayi ceeb. bu nu ñëwee fii kenn du ñu xam fenn fu ñu nekkal waaye bii paa dañoo gis ni bu ñu lancé les fermes agricoles des sans emploi moo am ay dortoir am infirmerie am li nga xamante ne mooy système goutte à goutte yi dén mën a def euh, agriculture boo xamante ne agriculture bu mucc ayib lay ba pare dañ fay defaale élevage sous forme d'embauche ak euh, élevage volaille ba pare en même temps aussi li nga xamante ni moom moo fay euh, génn nga xamante ne moom lay produire bu ci sans emploi yi amee ba pare rémunérer leen ci ñi nga xamante ni ñun moom la ñu tànn pour jox leen ko ñoom ñu chargé de la commercialisation pour mbir mi gën a yaatu moom mooy les personne à mobilité réduite mooy ñi ñuy tuddee handicapé mooy way laago yi ñoom la ñuy organiser lépp loo xamante ni ferme yaa ngi koy bay ñoom ñu jox leen ko buñ leen ko joxee ñu jaay ci am ci dara ferme bi am ci dara sans emploi am ci dara population population bi gis ci seen bopp moo tax muy projet boo xamante ni encore une fois bu ma permettez yeneen a may may occasion pour ma lancer un message te message bii may lancer lu tax mu impératif que euh, le ministre de l'agriculture accompagner ñu mooy que ni danoo yor suuf te suuf ku ko yor da ngaa war a valoriser nous avons l'existant nous avons les ressources humaines mais moyen dong dong dong moom moo tax euh, démarrer guñu ko te loolu accompagnement état maa ngi fay solliciter le ministre de l' agriculture deuxièmement li nga xamante ni c' est impératif pour ñu lancer ko et ça va absorber encore d' autres jeunes sans emploi ce sont les unités de lutte contre l'immigration clandestine ñun xam nañ ni gaal yi bis bu ñu ci jógul ñun sénégalais yi police du ma ne du def liggéeyam gendarmerie du ma ne du def liggéeyam waaye ñun li ñu ci mën ñoom mënuñu ko parce que ñun ñoo dëkk ak ñoom donc nag je lance encore un appel ci ñi nga xamante ni ñoo les autorité compétentes pour ñu accompagner ñu jàppale ñu au niveau des organismes internationaux yi nga xamante ni dañuy lutter contre l'immigration illégale xamal leen ni au Sénégal il des jeunes qui se sont constitués des jeunes robustes bien portants qui ont décidé de consacrer leur temps à la surveillance des côtes mais jamono dafa dox kon dafa am ay moyens yoo xamante ni moom lay laaj système bi nga xamante ni ñiy surveiller côtes yi xam nañ ko mënta nekk leneen lu dul subvention bu union européenne mën a yëkkati jox ñu ko ñu di ci rémunérer ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy nekk ak ñu nekk ci bureau yi ak ñu nekk sur le terrain ambassade de Espagne bu ñu compaloo as tuut tamit day mën a dox loolu noonu Italie la même chose mais le gouvernement du Sénégal ñun moom la ñuy lancer appel parce que en tant que sénégalais nous comptons d'abord sur nous-mêmes et nous avons confiance en ce gouvernement. nag moom je vais être très radical très direct gis nga problème bi xam nga fan la tàmbalee ci biir kër yi parce que on est à 94 pour cent au plus musulmans ñu am noo xamante ni noonu la ñu war a doxee doxewuñu ko ñeneen ñu dul musulman am nu ñu war a doxee di ko doxe ba tax na li nga xamante ni moom moo amoon solo mooy éducation de base bi ci kër yi la waroon tàmbalee ndax bu fekkee sa mbokki bopp yaa ngi bokk ak moom pexe bokk ak moom yéene bokk ak moom am-am ci biir kër gi. foofu déjà solution mën na faa am ndax xale bu génnee il sera bien bien bien éduqué ba pare aussi la surveillance aussi des parent léegi nag foofu sax yàqu na ñun duñu ci mën a immiscé wu waaye gis nga dans le cadre de l'éducation tey jii li nga xamante ni moom moo fi nekk gaa ñun on la solution pour absorber li nga xamante ni moom moo fi nekk mais vi enseignement bii nga xamante ni enseignement général bii baaxul pour dire la vérité baaxul parce que ñun li ñu yor ci des personnes diplômées kenn xamul nu mu day ak ñi nga xamante ni sax ils ont fait des formation mais dañuy génn mais amuñu ñu leen ñu leen appliquer le problème mooy il faut de nouvelle formes d'organisation mieux adapté à notre situation te loolu noonu ñun on a la solution mais éducation bi moom formation bi bu njëkk paa yi da daan ñëw buñ la xoolee sa njàng bënnul ñu boole la ak seen benn xarit da ngay defe ci mécanique wala tailleur wala leneen mais tey ji parent yi nga xamante ne dañuy surveiller seen doom bu doon fukk la benn moo ciy surveiller doomam des parents yoo xam te ne dañuy jur rek abandonné seen doom te wallahi azim ils auront des comptes à rendre au tout puissant Allah wallahi azim yàllaa ko wax yàlla moo ne képp koo xamante ne nii jox naa la njaboot sàmm nga te na ko sàmmee dinaa ko lijjante ak yow donc nag ku ci gëm yàlla gëm ni bis penc dina am gëm ni yàlla dina la àtte say jëf wallahi azim di nga surveiller ses enfants te puis le meilleur des investissements c'est l'investissement humain lu waay am na ko def ci njabootam ndax bu ñu réussir yow nga teel a am euh, retraité am sab tawféex mais bu fekkee yow say doom ni ngi jàng njàng ma njaaba njale jékki-jékki dugg dem si beneen cycle di salu dina am fu muy toll njàng moyen la parce que man j'en sais quelque chose y a de personnes yoo xamante ni dañoo takk problème moyen la te foofu nag laa jaaree utiliser li nga xamante ni mooy les métiers yi armée di joxe insérer fa beaucoup de personnes. mouvement des sans emploi du Sénégal reyante na ba ñii def armée ñii def concours police ñii def ay ENOA ñii def ay ENSOA selon les niveaux rek parce que man ñun li ñuy intéressé mooy que les gens s'occupent mais am na ñoo xamante ne ils n'avaient pas vocation de l'armée mais tey ji dañ cee dugg ba pare am amour bi am na ñoo xamante nii c'est des douaniers tey ay gradés ba ñu ciy dugg xa nekkul woon seen biir parce que ñoom li leen gëmloo woon mooy dafa xaraam waaye tey ba ñu ci duggee ni ngi ciy jaamu yàlla ba pare ah, am kii bi ñeneen ñi si des tamit c'est la police la gendarmerie ak yeneen ak yeneen léegi nag loolu ñooñu il faut nga am niveau pour mën a àgg foofu mais ñi amul niveau ñoo ëpp fuuf te ñooñu ñoo nekk ci mouvement bi te ñooñu la ñuy régler seen i problème te ñooñu ñoom ñoo tax ñun mënuñoo nelaw parce que amuñu. waaw bu dee ci wàllu lu jëm ci wàllu état bala ma ciy wax adhésion population bi la am. Parce que qu'on m'appelle de Vilingara, on m'appelle de Koulor, on m'appelle de Kouar. Kouar, c'est à Tambacounda. ak ay dëkk yi ñuy wax de ay Kothiari on m'appelle de Fatick on m'appelle partout partout partout parce que nit ñi dañoo gis ni gi ñun fi ñu jëm ñoom gis nañ ci seen bopp. bon vraiment nag ba ñuy woowee léegi ñu xool xam ne mbir mi daal dafa yaatu Sénégalais yi gis nañ seen bopp wax na leen li ñu bëgg a def te lan nekkoon nag réew moo gis dafa am kilifa te gannaaw ñii la ñu amoon ci ñoom yaakaar te ñun li nga xamante ni moom la ñu laaj du dara. lu dul accompagnement kese kese kese kese kese ak partenariat ak état donc pour ñu wan leen ni que possible de transformer le Sénégal dans le cadre de l'emploi loolu moom moo tax nag ñu jóg di fësal suñuy action waaye boobu ak léegi jaar nañ fi ci suuf kenn xamu ko woon waaye nag ñi ko xam a ngi fi ndax euh, fii Sénégal dara du fi umpee ndax mouvement bi jot naa réussir am ñoo xamante ni 800 et quelques personnes yoo xamante ni inséré na inséré nañ leen ba pare aussi ñun li ci gën a neex moom mooy que ni y' a 49 personnes te loolu c'est dafa siiw sax c'est viral 49 personnes yoo xamante ne nii feneen lañ naroon jaar mais accompagner na leen convaincre leen ba tey ji ni ngi bitim à travers le monde te jaaruñu ci mbënd mi. mouvement bi euh, wax naa ko fu ne wax ko fu ne dafa am ñu bare bari ñoo xamante ne xamoon nañ leen ci mouvement bi te ba ñuy dem umpuñu ñu ñu ci baree bari ñooñu ñëpp tey jii yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen ajana waaye ba nga xamante ni moment bi favorable na. étant grenier à ressources humaines ñun ñu décider toog xalaat ne ñun pourtant comme jéem reyante nañu ba nga xamante ni 49 personnes jaar nañ dans la voie de la légalité tey jii buñ ñu accompagner woon rek de ñu fexe ba ñu baree bari doot ñu dem loolu moom moo taxoon ñu décider euh, doon sàkku partenariat état pour ñu lancer li nga xamante ni moom la ñuy wax les unités de lutte contre l'immigration illégale muy immigration clandestine bi te ci loolu dañ ci am accompagnement wu ñi nga xamante ni c'est des anciens officiers Euh, supérieur de l'armée des officiers de réserve ñoo xam te ne ils sont formés dans les renseignements ñu ñëw lëkkaloog ñun pare pour accompagner ñu sans rien mais il c'est des patriotes c'est des patriotes xam nga ñoom sans rien pour ñu ñëw gën ñoo accompagner ci lool pour su ko defee fépp foo xamante ni gaal dafay déparé ñun ñu taxaw di ko surveiller nga xamante ni bu boobaa dee ñu mën a jox renseignement yi bokkul euh, unité de renseignement bi nekk ci biir nit ñi ak bureau yi bokkul ba pare ci biir unité de lutte yooyu noonu dafay am des brigades de renseignement yoo xamante ni ay sans emploi ñoo xam na nañu point yi ak fi ñu koy organiser yooyu yëpp ñoom ñoo fay dem bépp information boo xamante ni nii dafay jëm ci lu mel noonu ñu ñëw àggi ko bureau bi bureau bi en partenariat avec l' état ñu mën leen a jox parce que nu n'avons pas le droit de faire la police aussi mais on peut aider l' état tout en sur surveillant tout en surveillant les plages et et et et donc nag euh, loolu moom moo tax yàlla dogal ñu lancer les unités de lutte contre l'immigration clandestine boobu ak léegi nag ni ngi ciy déglu ñi nga xamante ni ñoom ñooy les autorités compétentes te bëgg nañoo seeti aussi waa Union européenne bëgg nañoo seeti waa ambassade Espagne ak waa ambassade Italie waaye dañoo xam ni bu ci état jàppee mbir yi day gën a gaaw te bu boobaa lii nga xamante ni mooy problème boobu dañ koy dañ koy régler loolu moom moo waral ñu décider lancer les unités de lutte contre l'immigration clandestine pare na ba noppi waaye mise en œuvre bi donc moom moo ci des te loolu ko feu <coughs> dafa de mbir moo xamante ne nii euh, dafa baax ci réew waaye ñun li nga xamante nii moom mooy programme bi ñu bëgg a lancé nga xamante ni programme spécial agriculture la moom mooy les FASEM les FASEM nag boo ko déggee moom mooy les fermes agricoles des sans emploi yàlla dogal na nu disposons de terre parce que on a 11 hectares à Louga ñu bëgg a lancer euh, FASEM yi Louga on a aussi trente hectares au niveau euh, de de de Thiès mooy fi nga xamante ni foofu la ñuy defee mbayum dër mi mais accompagnement wu état bu ñu ko amee incha allahu rabbi dañuy mën a lancer loolu nga xamante ni chaîne lay doon les sans emploi yi nga xamante ni ñoom ñoo fay def ñoo fay nekk dañ leen fay tabaxal ay dortoir defar leen fa infirmerie. defal leen fa mel ni kuy mankaani comme ni koy gars yi di defee parce que fii sax tey dinaa la wax nii am na ci ñoo xamante ni il quitte Thiès di dem euh, Morolan di fa def ay weer pour mën a am dara bu ñu wàññee ko ñëw j'ai des sans emploi yoo xamante ni dañu jóge fii di décanté wu di dem bay boori Rosso di bay ceeb bu ñu ñëwee fii kenn du ñu xam fenn fu ñu nekkal waaye bii pas dañoo gis ni bu ñu lancé les fermes agricole des sans emploi moo am ay dortoir am infirmerie am li nga xamante ni mooy système goutte à goutte yi dén fa mën a def euh, agriculture boo xamante ni agriculture bu mucc ayib lay doon ba pare dañ fay defaale élevage sous forme d'embauche ak euh, élevage volaille ba pare en même temps aussi li nga xamante ni moom moo fay euh, génn nga xamante ni moom lay produire bu ci sans emploi yi amee ba pare rémunérer leen ci ñi nga xamante ni ñun moom la ñu tànn pour jox leen ko ñoom ñu chargé wu de la commercialisation pour mbir mi gën a yaatu moom mooy les personnes à mobilité réduite mooy ñi ñuy tuddee handicapé mooy way laago yi ñoom la ñuy organiser lépp loo xamante ni ferme yaa ngi koy bay ñoom ñu jox leen bu leen ko joxee ñu jaay ci am ci dara ferme bi am ci dara sans emploi am ci dara population population bi gis ci seen bopp moo tax muy projet boo xamante ni encore une fois vous ma permettez yéen a may may occasion pour ma lancer un message te message bii may lancer lu tax mu impératif que euh, le ministre de l'agriculture accompagner ñu mooy que ni danoo yor suuf te suuf ku ko yor da ngaa war a valoriser nous avons l'existant nous avons les ressources humaines mais moyen dong dong dong moom moo tax démarré guñu ko te loolu accompagnement état maa ngi fay solliciter le ministre de l' agriculture deuxièmement li nga xamante ni c' est impératif pour ñu lancer ko et ça va absorber encore d' autres jeunes sans emploi ce sont les unités de lutte contre l'immigration clandestine ñun xam nañ ni gaal yi bis bu ñu ci jógul ñun sénégalais yi police du ma ne du def liggéeyam gendarmerie du ma ne du def liggéeyam waaye ñun li ñu ci mën ñoom mënuñu ko parce que ñun ñoo dëkk ak ñoom donc nag je lance encore un appel ci ñi nga xamante ni ñoo les autorités compétente pour ñu accompagner ñu jàppale ñu au niveau des organismes internationaux yi nga xamante ni dañuy lutter contre l'immigration illégale xamal leen ni au Sénégal y des jeunes qui se sont constitués des jeunes robustes bien portants qui ont décidé de consacrer leur temps à la surveillance des côtes mais jamono dafa dox kon dafa am ay moyens yoo xamante ni moom lay laaj système bi nga xamante ni ñiy surveiller côtes yi xam nañ ko mënta nekk leneen lu dul subvention bu union européenne mën a yëkkati jox ñu ko ñu di ci rémunérer ñi nga xamante ni ñoom ñoo ciy nekk ak ñu nekk ci bureau yi ak ñu nekk sur le terrain ambassade de Espagne bu ñu compaloo as tout tamit day mën a dox loolu noonu Italie la même chose mais le gouvernement du Sénégal ñun moom la ñuy lancer appel parce que en tant que sénégalais nous comptons d'abord sur nous-mêmes et nous avons confiance en ce gouvernement. 14 pour cent ou plus musulmans ñu am noo xamante ni noonu la ñu war a doxee doxewuñu ko. ñeneen ñu dul musulman am nu nu war a doxee di ko doxe ba tax na li nga xamante ni moom moo amoon solo mooy éducation de base bi ci kër yi la waroon tàmbalee ndax bu fekkee sa mbokki bopp yaa ngi bokk ak moom pexe bokk ak moom yéene bokk ak moom am-am ci biir kër gi foofu déjà solution mën na faa am ndax xale bu génnee il sera bien bien bien éduqué ba pare aussi la surveillance aussi des parents léegi nag foofu sax yàqu na ñun duñ ci mën a immiscer wu waaye gis nga dans le cadre de l'éducation tey jii li nga xamante ni moom moo fi nekk gaa ñun on a la solution pour absorber li nga xamante ni moom moo fi nekk mais vi enseignement bii nga xamante ni enseignement général bi baaxul pour dire la vérité baaxul parce que ñun li ñu yor ci des personnes diplômées kenn xamul nu mu day ak ñi nga xamante ni sax ils ont fait des formations mais dañuy génn mais amuñu ñu leen ñu leen appliquer le problème mooy il faut de nouvelles forme d'organisation mieux adaptées à notre situation te loolu noonu ñun on a la solution mais éducation bi moom formation bi bu njëkk paa yi da daan ñëw buñ la xoolee sa njàng bënnul ñu boole la ak seen benn xarit da ngay defe ji mécanique wala tailleur wala leneen mais tey jii parents yi nga xamante ne dañuy surveiller seen doom bu doon fukk la benn moo ciy surveiller doomam des parents yoo xamante ne dañuy jur rek abandonné seen doom te wallaahi azim ils auront des comptes à rendre au tout puissant Allah wallaahi azim yàllaa ko wax yàlla moo ne képp koo xamante ne nii jox naa la njaboot sàmm nga te na ko sàmmee dinaa ko lijjante ak yow donc nag ku ci gëm yàlla gëm ni bis penc dina am gëm ni yàlla dina la àtte say jëf wallaahi azim di nga surveiller ses enfants te puis le maire des investissements c'est l'investissement humain lu waaye am na ko def ci njabootam ndax bu ñu réussir yow nga teel a am euh, retraité am sab tawfiix mais bu fekkee yow say doom ni ngi jàng njàng ma njaaba njalle jékki-jékki dugg dem si beneen cycle di salu dina am fu muy toll njàng moyen la parce que man j'en sais quelque chose il beaucoup de personnes yoo xamante ni dañoo tag problème moyen la te foofu nag laa jaaree utiliser li nga xamante ni mooy les métier yi armée di joxe insérer fa beaucoup de personne mouvement des sans emploi du Sénégal reyante na ba ñii def armée ñii def concours police ñii def ay ENOA ñii def ay ENSOA selon les niveaux rek parce que man ñun li ñuy intéressé mooy que les gens s'occupent mais am na ñoo xam ne il n'avait de l'armée mais tey ji dañ cee dugg ba pare am amour bi am na ñoo xamante ni c'est des douaniers tey ay gradés ba ñu ciy dugg nekkul woon seen biir parce que ñoom li leen gëm la woon mooy dafa xaram waaye tey ba ñu ci duggee ni ngi ciy jaamu yàlla ba pare am kii bi ñeneen ñi si des tamit c'est la police la gendarmerie ak yeneen ak yeneen léegi nag loolu ñooñu il faut nga am niveau pour mën a àgg foofu mais ñi amul niveau ñoo ëpp fuuf te ñooñu ñoo nekk ci mouvement bi te ñooñu la ñuy régler seen i problème te ñooñu ñoom ñoo tax ñun mënuñoo nelaw. ah message bii nag may lancé maa ngi koy lancé à tout sénégalais ak foo munti nekk ci àdduna di si jiital son excellence monsieur le président de la république du Sénégal ñu di ko wax Bassirou Diomaye Diakhar Faye man ma tuddee ko bañ dee juqi fay ndax dafa amoon euh, tournée bu ma doon def ci benn village góor gi am benn paa bu ma ne kii mooy bañ dee juqi fay ndax jubal moom moo tax. moo tax ma tuddee ko noonu moom laa njëkk a lancé message xamal ko ni les sans emploi du Sénégal ak ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew danoo réunir pare pour apporter apporte ko suñu contribution ci yoon bii nga xamante nii foofu la ñu jooy jëmale muy yoonu jub jubal jubbanti ku nekk gis sa bopp am nañu pexe yi te na ko xam am nañu yéene bi na ko xam am nañu pas-pas bi na ko xam te nous sommes engagés et déterminés li may lancé nag ki nga xamante ni moo ci tegu muy le euh, premier ministre Ousmane Sonko nga xamante ni moom mooy la chef du gouvernement du dara lu dul dafa am loo xamante ni moom il faut que mu taxaw ci jàppale ñu parce que euh, dafa am ci lu mu ñu woo te li mu ñu woo c'est le projet te projet bii nga xamante ni moom la woote ñun la mouvement des sans emploi du Sénégal ñun nu pensons que nous sommes le projet ñun ñun ni ñu xalaatee Chaque Sénégalais est, est, le projet. À chaque Sénégalais, moi, moi, en tout cas, je suis le projet. Moi, Sec Emploi, président du mouvement des sans-emploi du Sénégal, je suis le projet. Les, les, les, les membres du mouvement des sans-emploi du Sénégal, chacun en ce qui le concerne, est le projet. Donc nous allons accompagner ce projet la dans la transparence. Donc, c'est ce que la euh, première ministre dit. Nous pour mu jot suñu message te ni nga koo koy ñaan ngir yàlla dafa am lu ñu bëgg a wane parce que coow li bëri na ci dëkk bi te nit ñi dégluwuñu loolu li ñu bëgg a déglu mooy précarité bii dañ cee am pexe parce que bu ñëpp dee yëngu ku ci nekk di am dara ne serait-ce muy loo xamante ni c'est c'est le minimum dina mën a jur confiance et ça va nous permettre de vivre dans l'union et l'harmonie des cœurs su ko defee nit ñi dañuy dal mais ki nga xamante ni bu xëyee day am problème mu ndékki ndékki bi ñëwagul muy muy xalaat fan lay añee mais jàmbaar kooku bu ko yàlla dimbaliwul dëgg day verser dans les interdits day dem ci li nga xamante ni yoon da koy tere ak loi loolu moom moo tax man daal ñu ngi lancé message ki ci jiitu à Sénégal yëpp ki ci jiitu mooy le président de la République ki ciy tegu moom mooy le première ministre euh, Ousmane Sonko parce que kooku bu ñu si jotee ci moom comme li ñu yor dafa transversal day dimbali police day dimbali santé day dimbali agriculture day dimbali environnement day dimbali hygiène publique juste leen koy ñaan mooy mu recevoir ñu ngir yàlla ñu ne ko grand lii la ñu gis te xoolal affaire bi fu ko neex en moins de weer weer weer weer transformation bu rapide boo xamante ni te gars yi dañuy bëgg su ko defee ñi nga xamante ni dama yàlla baal ay kuti mbaw mbaw la ñu nga xamante ni dañuy talax talaxi ak di rambax rambaxi uba la ñu ay wax ñu mën a téye seen gémmiñ noppi ñun loolu la ñu bëgg quoi mooy ñu jublu ci li nga xamante ni moom mooy sans emploi bi te attention aussi je dis au président de la république aux membre du gouvernement que les sans emploi ni ngi leen teg bët ni ngi leen teg bët dans le cadre de la politique de l' emploi donc comme nag ni ngi leen teg bët ba pare pare pour accompagner leen nan leen fédérer les forces su ko defee un peuple un but une fois d'où notre slogan nan leen liggéeyandoo tekkeendoo